mu mel ne nag bis bi yàgg nañu ko amal ci barab bii ak ci weer wi ñu koy defe di ko jagleel kenn ci njabootu xaadima rasuul muy soxna Aysatu Mbàkke bis bi nag njàngum alquraan moo ci jiitu ak lenn ci xasaay ci Seyxul Xakiim bu ñu noppee toftal ci ay salawaat ala nabi ci lim takku jagleel ko soxna si ak mbooleem ñi mu bokkal sëriñ bi ñuy sant bu baax nag bokki taalibe yi jege ak yi sori tey jàpp ci njàngum alquran mi ak ñaan yi ñu jagleel bis bi xam ngeen ne bis bi nag dañu fee wuutu rekk njabootu sëriñ Tuubaa gi waaye ëpp ñu leen ci ab cër ba tax na la tàmbulee ca xalifa général bi di sëriñ Muntaxa Mbàkke ak mbooleem ay rakkam ñi ngi leen di ñaanal yàlla mu yàggal leen fi te yàggal nu fi te booleenu may ak wér di sant itam mbooleem ñi sëtoo ci suñu maam sëriñ Mbàkke Ibra di sëriñ Mbàkke Kajoor di rafetlu seen taxawaay ci bis bi dellu di sant mbooleem suñu bokki taalibe yi aju ci kër gi seeni taxawaay ràññiku na te seeni jëf yegsi na di sant mboolem dawaayir yi ak ña ca nekk ci ay góor ak i jigéen ak ña leen jiite yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen te jàpp ndal seeni mbir bu loolu jàllee na am na ay kàddu yu ma fi baaxoo yëkkati at mu jox bu bis bii ñëwee waaye na ñépp xam ne lu ma fi wax ak defar rekk laa ci jublu te sama bopp laa ci jiital ba tax na képp ku ci dégg genn kàddu gu niroog say jikko te amaana miinantewuñu ba may xam la nga jikko nanga xam ne jubluwuma ci ak tooñ moo tax may ñaan borom bi subhaanahu wa mu boole ñu jéggal te tàbbal ñu ci yërmandeem kàddu yi nag fi mu daa tàmbulee mooy di jéem a fàttalente li tax suñu borom binduñu te mooy ñu jaamu ko kon li ma tax xàmmee mooy wéetal yàlla te bañ koo bokkaale ak lenn wa xawluhu taala waabudullaha wala tusriku bihi shay'an ak jaamu yàlla nag dafay ànd ak wéetal ko ndax fa kullu ibadatun la tawxida fiha laysat bi ibada moo tax li war a jiitu mooy sàkkoo xam nu ñu koy jaamoo te loo ci xam nga jéem koo sellal ndax ak jaamu yàlla dafay taqoog wéetal ko te mooy yokk sa ngëm te moo lay sóob ci yoonu njub anal muwaxidiina lahumul amnu wa hum muhtadun kama qaala taala allazina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kon jaam bu nekk la war mooy farlu ci sa wàllu diine tey moytu ci say jëf lépp luy niroog bokkaale ak njistal te xam ne suñu boroom ku wéet la ci ay sañ-sañam te soxluwu ci wéttal te coobareem rekk lay jëfandikoo ci lu ko soob ak waxtu wu ma ko soobe qaala taxaala in kullu man fi samaawaati wal ard illaa aati rahmaani abdan subhaanahu wa moo yilif ñépp te du diisoo te amul ku muy tàggu door a jëf allazi lam yattaxis waladan walam yakun lahu sarikum fi l mulk walam yakun lahu waliyum min azulli wa kabirhu takbira moo tax mbindéef lott na ci tuxal ak nameelam mbaa soppi ay jëfam te am noflaay dëgg nag ku ko aajowoo lépp lu suñu borom dogal fu mu la fekk nanga ko bànneexoo te xam ne am nattu des koy muñ ndax yàllaa koy teg ab jaamam ay xéewal dees koy sant yàlla ndax moo koy jagleel ab jaamam ki bëgg xañ boppam noflaay nag mooy ki bëgg fekk lu suñu borom dogal ci ab jaamam mu di ko naqarlu loolu mat naa moytu ndax bari na feebar yuy faral a dal ci xol yi te bu yàggee benn man la cee gaar ba noppi yóbbil ak weddi sa boroom wala yaasu suñu boroom lépp lu mu dogal ci ab jaamam muy lu ko neex mbaa lu ko naqari lu mu ci doon jiitu na ab juddoom loolu tax na jullit dafa war a ragal yàlla tey rafetal ay njortam te yàlla dëgg nag la ca suñu borom dële góor ak jigéen la ko boole waada allahu almuminina walmuminaati jannatin tajri min tahtiha al anhaar xaalidina fiha wa masakina tayibatan fi jannati adnin wa ridwanun min allahi akbar saalika huwa alfawzu alazim suñu borom bind li mu wax ci alquran mi ngi ko jaarale ci ndawam li mu yónni te wóolu ko muy muhammad alayhi salaatu wasalaam te nee na képp ku bëgg ak njub tegu ci yoonu dëgg na taqoog topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne wa in tutiihuhu tahtadu wa ma ala rasuli ila al balaaxul mubiin kon kooku mooy suñu royukaay ci diine te moom la yàlla wàcce ci moom alquran ngir mu xamal bindeef yi tàqalee leen diggante dëgg ak i ba noppi feeñal ak xuppe ci nit ak jinne ci mbugalum yàlla tabaraka allazi nassala alfurqaana ala abdihi li yakoona lil aalamina nasiran allazi lahu mulku samawati wal ard walam yattaxis waladan walam yakun lahu zarikum fi lmulk wa xalaqa kulla cheyin fa qaddarahu taqdira moo tax jullit li ko war mooy muy topp alquran ak sunna ndax wa ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha sadidul iqaab mu dëppoog li yonent bi wax ne maa nahaytukum anhu fajtanibuuhu wa ma amartukum bihi fafxalu minhu mastataatum rawaahu abu hurayra yàlla nañu yàlla saxal ci topp yàlla akub yonentam tamu boole ñoo kàttan ak akub wér gu ñu mën a jooxe ay ndigalam wa aqimu salaata wa atu sakaata wa atiixu rasula laallakum turhamuun bu loolu jàllee ñu teg ci yeneeni kàddu yi jëm ci jamono nii muy doxe ak ñi nekk ci biiram rawatina réew mii di Sénégal ak li mu làmbool ci ay jikko yu soppiku bu ñuy jeexal tëje ko ay kàddu yu néew ci tariixa bii ñu yàlla boole muy tariixatul muridiya ñu tàmbulee ci jamono ji ak i meloom ndax jamono ji lépp lu fi naqari nit dafa war a xam ne jikko yu yàqu yee ko waral te li ko yokk ñi seeni jikko yàqu te naruñu mu defar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 inna min aswaajikum wa awlaadikum aduwan lakum faxsaruhum wa in taxfu wa tasfahu wa taxfiru fa inna allaha xafurun rahim innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun wallaahu indahu ajrun asim ab jullit nag dafay nangoo muñ lu bari ngëm yàllaam door a yokk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na as sabru nisful iman wa qaala aydan as sabru kansun min kunuusil janna kon yàlla nañu yàlla boole ca wala najsiyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun bu loolu jàllee ma jeexale samay kàddu ci fii ma yàlla boole muy tarixatil muridiya te ki ko taxawal di xaadimu rasuul te mu andi lu leer nàññ te dara génn ci alquran ak sunna ba noppi yoon wi nag fii mu ne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 wa ulaika hum ulul albaab wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu